ci plan de résilience bi nga xam ne jël na ko am na pàcc bu am solo boo xam ne mu ngi koy jagleel fexe ba bërëbu xëyukaay yi bañ a suux mais fexe ba ñi ciy liggéey continuer di am seen i payoor loolu tax na président de la république jël na benn ndogal ci alarba bi weesu di juróom-ñetti fan ci weeru avril ndogal boo xam ne ay ponk yu am solo mënees na ci mënees nañ ko ci jukki bi ci jiitu mooy président de la république nee na ci waxtu wi nga xam ne ñu ngi dund mbas mi tere nañu bépp dàq liggéeykat ci biiru entreprise te loolu nag mu ngi tàmbali ci fukki fan ak ñeent weeru mars ndax boobu pour mu mën a am rek li koy mën a lal mooy mu am lu ñuy naan faute lourde ñaareel bi mooy président la République dogal na ne kii xëyle maanaam employeur bi dafa war jéem kën kattanam pexe ba chômage technique bañ a am pour boobu chômage technique bañ am dafa war a wut moo ñi nga xam ne ay ndawu liggéeykat yi la ay alternative maanaam ay pexe yoo xam ne mën na tax liggéey bi continuer pexe yooyu mënees na ci lim ñu wàññi diiru liggéey bi ñu def liggéey boo xam ne dañ koy ay ayloo mbaa boog ñu xëcc congé yi mbala ñu yóbbu liggéeykat yi ci yeneen i poste de travail loolu lépp pour jéem fexe ba ñu jéem a rëcc ci chômage technique ñetteel bi mooy bu fekkee ne chômage technique mënta ñàkk nañu jàpp ne képp ku ñu yóbbu ci chômage technique sa njaati gi maanaam ki lay xeeloo lim lay fay mënul néew benn SMIC bi mënul néew tam téeméer boo doon am juróom-ñaar fukki da koy am ba mot te loolu nag dafa war a daw ci diiru feebar bi bi fi nekk ñeenteel bi mooy président de la République dafa dogal liggéeykat bi comme même bu toogee chômage technique dañ koy jox lu am solo ci peyoram dafa war a déglu may gët may nopp ki koy xëyloo bu kooku bu ko wooyee soxloo bu ko wooyee mu mën a wuyu ci lu gàtt def liggéey bi nga xam ne dañ koy sant loolu daal ci lu gàtt mooy ndogal bi nga xam ne président de la République jël na ko maa ngi leen di gërëm leen di sant Euh, bonjour Issa Tchorogay, bonjour euh, à Ismaïla Diop. Alors euh, aujourd'hui encore, vous avez entendu les deux communications Euh, celle du ministre de la Santé et celle du ministre du Travail, puisque vous savez, le Covid-19 est en train de bouleverser la marche du monde et Sénégal n'est pas en reste. Alors, je m'en vais vous rappeler un peu les différents cas que nous avons au Sénégal. Sur 195 tests réalisés, il